بسم الإله إفن الأدار يا الله سفي بقاء به لي فيك يا الله بسم الإله إفن الأدار يا الله سفي البقاء به لي فيك يا الله bismillahi fiinil أدار يا الله سفي بقاء أبيهم لي فيك يا الله يا من له الأمر يا من لا شريك له gannaaw bu ñu defee ndigal la mu njëkk a defal muy tuub dellu ci yàlla jéggalu ko fedd li sunu taalibe ci Sëñ Tuubaa defe na njàng mi ci alxuraan ji na mu ko bëgg xasida yi it noonu la demee aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin la hawla wala quwwata illa billahi aliyil azim barke borom Tuubaa asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki jullit yi bokki taalibe mbokki téléspectateurs yi jàkkaarloog ñoom di ñu seetaan ci seen télévision Lamfal TV ci seen émission bi ñu duppee ëttu murit te ngeen miin di ko ànd ak seen mbokkum taalibe Fallou Galass Syll dibéer ju jot bu vingt une vingt une heure jotee mbokk yi ñu àndandoo ak yéen di nuyu ak ziar jëwriñu yoonu murit di Serigne Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa di ko ñaanal yàlla sunu boroom may ko fan wu gudd lool waa ànd ak wér yaram ba naal yi mu naalal lislaam yëpp mu àggale ko te ñu ànd kook moom te am ci ngërëmul sëriñ bi di beral siyaar sëriñ abo baraka xalifa cheikh mahamadul fadal mbàkke ak mbooleem njabootu cheikh mahamadul fadal gépp ziar boobu ñu teg ko ci loxol sëriñ abdul fatah ibnu cheikh mahamadul fadal mbàkke di siyaare sëriñ moustapha mbàkke moom sëriñ mamoor moom cheikh mahamadul fadal ak mbooleem ñi mu bokkal sëriñ mamoor di siyaare nag mbooleem ëtti alxuraan yi fu daaray alxuraan mën a ne ci biir réew mi wala bitim réew mbokk yi tey jii ñu maasewaat sant yàlla ci jataay bi nga xam ne teew nañ ko di jataayu fàttaliku ak dolliwaat ay ñaan ci jàmbaari lislaam jooju ñu tudd di sëriñ Mamor Mbacke moom Cheikh Mahamadul Fadal Mbacke ñu toog ci ndigalul Cheikh Mahamadul Moustapha mi nga xam ne tey jii moom la yàlla teg ci bopp njaboot gi leen mu ànd ak ay rakkam yépp di leen di ñaanal sun borom yal na leen yàlla sàmm te aar leen te may leen fan wu sut seen way wayjur wa te mbooleem lu mu yéene woon ñu def defal ko ko ci barke Cheikhul Khadim ñu feggoo ci jataay bi Serigne naa ak Cheikh Abdoul Ahad ñu teewal fa seeni mag waaye ñu seq nag ci plateau bi ci sama loxol ndijoor sëriñ Mourtala Silla ci sama loxo loxoy càmmooñ sëriñ alxaaji Ndiaye Cheikh Ndindi maam sëriñ Jaxate ak sëriñ alxaaji Fallou Ndiaye waaye sëriñ naa Joxaane incha allah dana ñëw ci jataay bi sëriñ du ñaan di ndawul sëriñ bi ci liggéey bi ñu fas yéene toog rek nafaraat ndax boroom xam-xam yi dañuy wax ne fàttaliku nituk yàlla dana wàcce yërmande yàlla ndax dana tax ñu mën a roy ci moom jikko joo xam ne ku ko jikko woo boroom mën a am ci yow ak njéggal ak yërmande ngir bañ a guddal nag njëkkante ak waxtu wi damay bàyyi ak sëriñ maam sëriñ jaxate maam sëriñ jaxate mu ñëwal ñu ci kan mooy sëriñ maam moor moom Cheikh Mahmadul Fadal nit ñëpp dañ koo gën a rek ci sëñ maam moor say jaxate wala sëñ maam moor alquran waaye boo ñu doon tënkal kan mooy sëriñ maam moor ci cosaan mooy kan bismillahi arrahmani irrahim wasalaatu wasalaamu ala man ursila rahmatan lil alamin sayidina wa maulana muhammadin al makin alihi wa ashaabihi sawi ridwaani tamkin bismillahi rahmani irrahim barke borom Tuuba asalaamualeykum wa rahmatullahi taala bu baax di la ziar itam ci ëtt bii nga xamante ni moom ni nga ko waxee mooy jotaayu murit ñu ngi la ci ziar bu baax a baax di ñëw rek ci laaj boo xamante ni xaj na tontu ko dana yomb ngir day loo xam ne lu ñëpp xam la muy kan mooy sëriñ Mamor ci wàllu uh, wetu kër ndey ak wetu kër baay li ci xam mooy ñoo ngi nuyu ñëpp comme niñ ko waxee woon di nuyu Serigne Moustapha mi nga xamante ni moo ko fi nekkal di ko ñaanal itam yàlla yàggal ko lool te wéral ko ba li mu yéenee liggéeyal Serigne Touba mu def ci lu kawe njortam di xam ni itam teew nañ ci ndigalam ànd ak comme ni ko waxee kilifa yi ñu àndal jotaay bi yëpp di xamle itam ci loolu ngeen laaj muy kan mooy Serigne Mamour. sëriñ Mamor mooy doomi sëriñ lu Mbacke ju ñëpp xam sëriñ Fallou du kenn di laajte ku ñëpp xam la waaye kon lii gën a yitte ji rek mooy ñu ñëw ci wet gi nga xamante ni xañ na ñu bari mën nañ caa xam mën nañ caa umple muy wetu kër waajuram bu jigéen di soxna Zeynabu Jaxate mi nga xamante ni mooy waajuram ba tax ñuy wax sëriñ Mamor say Jaxate soxna Zey moom nag euh, ku nuy wax sëriñ Faatu Jaxate mooy waajuram sëriñ faatu Diakhaté sëriñ Yéeri Diakhaté mi nga xamante ni mooy waajuru sëriñ Fatou di maami soxna say moomee moom la woon ak sëriñ Touba ci ay jataay yu yàgg yu bari itam yoo xamante ni ak ay ngërëm yoo xam ne sëriñ Yéeri moomee am na ko ci sëriñ Touba kon soxna say bu ñuy wax dañuy wax ni mooy sëtub sëñ Yéeri comme niñ ko waxee waaye itam sëñ yéer yi ca la woon bokk na ci ñeen fukk ak juróom yi nga xamante ni ñoo jébbuloo woon fële ca Mbàkke Kajoor bu ñuy xool kon buñ nee fukk ak juróom kooku benneel kooku mooy sëñ yéer jaxate nekkoon itam boroom alxuraan bokk ci càllal ak jaxate ni ko ñëpp xame doonoon kaang itam doonoon koo xam ne itam ku ñëpp xamoon la ngir ci ab dayoom ak ci ab juddoom bu sell ak ci aw askanam bu mat sëkk nga xam ni càllale gi mu bokk mooy Amar Kaba mi nga xam ni moo fi indi askanu njaxate ci càllale googu la sëriñ njéeri jaxate bokk si njéeri jaxate moom nag am na ngërëmul sëriñ Touba ndax liggéeyal na sëriñ Touba liggéeyu kawe bokkoon na itam ci aw doxinam comme nii ñu koy xamee ci aw melow sa njéeri ni ñu ko xamee ca mag ña doxin wa ñuy mën a xam ci moom mooy doomi soxna la woon ju amoon xam-xam ci alquran ak ci mboolem xeeti fànni xam-xam yëpp waaye nag it doonoon na koo xam ni ku doon dundu sëriñ bi la ku ko doon la itam ku ko doon liggéeyal la ku ko doon wane itam la ci biir loolu tax na ñu baree bari moom sëñ yéri moomu nga xam ni mooy maami soxna Zay ñu bari am na tey ñu ni lim di leen tudd ñoo xam ne sëñ yéri moomu moo jàpp ci seen loxo yóbbu leen ci sëriñ Touba. loolu xam nañ ci ñu baree bari ñoo xam ni tey jii ay seex lañ am nañ mbooloo te ci Serigne Njeri Jaxate moomu lañ jaare ñëw ci Serigne Touba waaye itam mu amoon doomam ju ñuy wax sëriñ faatu Jaxate moom sëñ Yéri moomu Serigne Fatou Jaxate moomu nag moom moo jamononte ak Serigne bi waaye itam jamononte ak sëriñ Fallou ndax bi nga xamee ni sëriñ bi jóge na ci tukki bi comme niñ ko xamee bi mu ñëwee wax na ni sëriñ Fallou moo nettali loolu moo wax ni bi sëriñ bi jógee ci tukki bi fekk na moom sëriñ Fallou mu bind ab kaamilam bëggoon na ab kaamilam fekk sëriñ bi ci géej gi waaye nag xañ na amul woon moyens yi ngir mu mënoon dem fekki ko ci géej gi loolee tax na mu téye di déglu sëriñ bi ba dégg ñu ni Serigne bi ñibbisi na mu di ko déglu ba dégg ko dëkk bi ñuy wax ñaxal si la Serigne Fallou ma. dem ba àgg di jébbal sëriñ bi sama kaamil fekk sëriñ yéeri jaxate moom ma wax jàpp ci loxob sëriñ faatu jaxate doon ko indil moom itamit sëriñ bi nga xam ni moom la ko duppee waaye doon ko ko andil wax na ni bi mu nuyoon teeg sëriñ bi ba noppi jébbal ko ab kaamilam fekk sëriñ yéeri jaxate moom tamit di jébbale maam sëriñ faatu sëñ Tuubaa ci boppam dafa jël loxob sëriñ yéeri jax sëñ faatu jaxate moomu teg ko ci loxob sëriñ fàllu daal di jël kaamil bi nga xam ne moom la sëñ fàllu bindoon moom tamit daal di koy teg ci loxob sëñ yéeri jaxate moomee moo tax sëñ fallu daan wax naan sëriñ faatu mooy taalibe bi njëkk ci man bu ma sëriñ tubaa joxal boppam ci loxob boppam loola sëriñ fàlloo ko seere waaye nag mu jàngal ko itam sëñ fàlloo ko jàngal moo ko yar moo ko tarbiya lépp lu ñuy defal doomi soxna lu nekk sëriñ fàllu moo ko ko defal ba gërëm ko itam moom Serigne Fatou moomee kon Serigne Fatou moomee nag moo mooy waajuru soxna Saynabu jaxate mi nga xamante ni mooy waajuru Serigne Mamoor soxna Saynabu moomee nag mooy taalibe Serigne Fallu bi nga xamante ni daan na ko liggéeyal ci keppaaram ba am ay ngërëm yu baree baree baree bari ci moom waaye itam mu liggéeyal ko liggéey bu kawe ba am fa leer gii ñuy tudd muy Serigne Mamoor Mbàkke moom Serigne Fallu kon sëriñ Fallu Galas bu fekkee ni amut leneen lu ñu war a mën a delloosiwaat ñu taxawal foofu ba nga delloosiwaat incha allah ñu soog a àggale comme ñu ko bëgg jërëjëf jërëjëf maam Serigne ci li nga jot a indi leer na ci cosaanul Serigne Maam Mor yaakaar naa ne bokk yi nga xam ne ñu ngi dëkk mbaakol ak xel koom goo ci mën a dégg rek. xel ko mu yéeri jaxate la euh, kon sëñ Mamor ci néegub doomi soxna la génne ci yaakaar naa ne foofu it boo fa doon lim ña fa génne buñ leen nee sëriñ bi nee na ngeen sanc ab dëkk dana doon dëkk bu bari ay kër waaye li muy tegtaloo rek mooy junjub sëñ Touba lu doy waar la ndax sëriñ Fatou bi ko woy juram di jébbal sëriñ Touba. dafa fekk sëñ falu di jébbale kaamilu alxuraan te ku ne xam ne sëñ Tuubaa lépp lu ñu ko mën a jox ci àdduna alxuraan a ko ci gënal la tax mu nangu njébbalu sëñ Faatu fab kaamil ba jox yéeri loolu doon na tegtale ne kon jiwu alxuraan la ci doon wut moo tax sëriñ Maam Moor mënutoon a nekk lu weesu rek Maam Moorum alxuraan ndax pàggu teef ga moo sori kon ñi ngi jaajëfal bu baax a baax ci li nga jot a indi xanaa damay ñëw ak sëriñ Alxaaji Fàllu Njaay moom mi nga xam ne euh, du ma dañ ci di ko wax waxtu ne doomi daara la di doomi addiya eh, ko xam Baye Cheikh Ndiaye ñu gën ko Baye sëriñ fa eh, Baye Alxaaji Ndiaye Cheikh Ndindi tegtal bi rek mooy sëñ Fallou lañ ko tuddee waaye dakkantelam wa Ndindi la kon loolu mooy xamal ne cosaanam lépp Cheikh Mamadou Fadal la eh, mu dëkk mu ne ci néegub alxuraan moom it juddoo ko ci ndey ak ci baay waaye suñu borom boole ko nag ak Serigne Mamor ñu ànd ci jikko waaye ànd ci métier nit mën nañoo ànd ci métier te duñ bokk ay jikko nit mën nañoo bokk ay jikko te duñ bokk métier waaye mook sëriñ Mamor ñu bokk métier ba noppi bokk ay jikko ba noppi mu di taalibe sëñ sëñ alxaaj yi bëggoon nañ ñëw tuuti ci jëmmi sëñ Mamor ci wàllu njàngam ndax ñu bare bari yarub sëñ Mamor day tax xamuñu fa xam-xamam toll ni ko suñ borom bindee ci ak mën a nëbboom tax na dayo bi nga xam ne sëñ Mamor am na ko ci wàccuwaay ci liggéeyal li mu liggéeyal yàlla ci alxuraan ak ci wàllu xam-xam fi ci toll woon ñu bari xamuñu ko woon ñu bëggoon nga ñëw foofu rek ginnaaw boo nuyoo ba nuyu di la ziara di nuyu ñi ñu bokkal jotaay bi ñëpp di ziara sëriñ Mountakha mi nga xam ne mooy. jëwriñu yoonu murit ak Cheikh Baraka mi nga xam ne mooy jëwriñu ko Cheikh Abdou euh, xam naa ne jëmm ñuy dajale fii tey day du yàlla loolu nañ gànt ba tàyyi ngir ngir wax gi ndax diis gu mu diis lool ku ne waxtaanal nag ci wet Euh, <clears throat> danañ jël siwaat <clears throat> danañ siwaat xam naa loolu mooy tegtale rek liñ doon wax ci ci moom kon kon kon euh, ñu dogal ngànt sëñ alxaaji Njaay Seex Ndindi euh, wax dëgg yàlla jaadu na ci jataay bi mu mel noonu kon sëñ Murtala yaakaar naa ne sëriñ bi yaari daara la sosoon mu daaray jàng alxuraan ak xam-xam ak daaray tërbiye ngir rooxu nit ki mu mën koo yéege jëme ci yàlla moo mel ne nag ci wàllu tarbiya ginnaaw boo taxoo woon ak sëñ Maam Moor mu bëgg la ngir li leen yàlla boole ci bokk gi bëgg la itam ngir li ngay taalibi sëñ Tuubaa waaye bëgg la ngir li ngay yëngutu ci xam-xam te ku yëngutu ci wàllu xam-xam ku ne rek sëñ Maam Moor def na la boppam yar bi nekk ci sëñ Maam Moor te tarbiya bokk ci biir yoonu murit aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayidina wa mawlana muhammadin amin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa ummatihi ajmain waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu Cheikh Mamadou Fadal noo ngi lay fay nuyoo di nuyu Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ne mooy jëwriñu yoonu murit ak mi nga xam ne mooy jëwriñu kër Cheikh Mouhamadul Fadal waaye di nuyu ak a ndorkeel ak a ziar Cheikh Mouhamadul Moustapha mi nga xam ne moo nekk ci njaboot boppu njabootuk sëñ Mamour di ko ñaanal yan bi woyof lool ci moom te yàlla mottali yéene yëpp di siyaaree rakkam yu baax yëpp mën naa ne suñ tuddee sëñ Cheikhouna mii ci jataay bi ak Cheikh Abdou Lahad tudd nañ njaboot gi yëpp di siyaare it mbokk yu baax yi nga xam ne ñoom lañ bokkal jataay bi yaakaar naa sëñ alxaaji sëñ alxaaji Njaay fi mu daaneele rek képp kuy doomu daara du ma wax sax kuy njaboot sëñ Mamor waaye kuy doomu daara rek am am nga bi yëg-yëg ci moom tey daanaka boo dee wax ci moom sago yàlla moo lay may sago rek nga àggale waaye eh, jëmm la woon joo xam ne eh, xaritum ñëpp la woon rawatina ñu doon yëngu ci xam-xam eh, yàlla defoon ñun ñi dañuy nab nabi ci wàllu xam-xam moo amoon coxeel lool ci ñun sama tur sax daaw ci jaar oustaz rek dama daa wax <laughs> ñu ngi koy ñaanal baax a baax suñu borom dotti ko yërmande ju bëree bëri ak ak ngërëm xam naa tomb bii nga laaj muy lu jëm ci wàllu tarbiya tarbiya yonent bi sallallahu moo ko njëkk a def yoon la woo xam ne nii moog yonent bi ñoo ànd ñëw ci lislaam lu du luñ sos ci yoone waaye luñ yeesal la ci yoone ndax lislaam bi muy ñëw dafa am nit yu tasaw fii luñ daa wooye taxliya ak taxliya tax taxliya mooy maanaam ndab li bala nga ciy def aw ñam wala nga ciy def luñ mën a jëfandikoo ñu laabal ndab li ba laab sëñ bi ca Mbàkke Kajoor wala ci cosaanam bu njëkk wàllum njàngale rek la daa def suñ mag bi njàngale ci téere xam-xam loolu la dondoo ci ay waajuram ak i maamam bi nga xamee dem na ba nga xam ne yàlla ubbil na ko bunt moom sëriñ bu mag bi ci la xam ne ca Mbàkke Kajoor na képp ko xam da nga fay ñëwoon ngir masala rek di jàng ci wàllu xam-xam ak diine loolu de lu baax la lu am solo la lu mënta ñàkk la ci lislaam euh, am nga ndigal it bu fekkee loolu rek nga bëgg nga dem ci daara joo xam ne loolu la def waaye fi mu ne moom amatuma jot di yem ci mu jàngale rek euh, koo xam ne ne da bëgg liñ bëgg muy tarbiya bil ma yegg ca suñu borom man ngaa jëm soobu ñu àgg ñu dem. loolu euh, yonent bi ba mu defee lu mel noonu suñu borom da koo xamal ne ko ñi la jox loxo yàlla lañ jox loxo ci waxin ne la si ne yu bàyyi woon ne maa yu bàyyi woon yadullahi wa aydihim ñi nga xam ne dañuy jaayante yow seen jaayante googu loxo googu ñu la teg yàlla lañ teg loxo bi waxee loolu it ñi ko comprendre dëgg ca xamoon ko ci lu baax dañoo ànd ak moom ca loola. tarbiya mooy sëñ Fallou nit ki nga xam ne daa sóobu bëgg a dem ca yàlla. ñu yombalal ko yoon wi yaatalal ko yoon wi li ci nekk ci ay panq-panq yëpp ay gàllankoor ñu dindil ko ko ca gàllankoor yooyu yi ci ëpp sax du ne ci yoon wi waaye ci nit ki lay doon ndax doomu adama moo bindoo di am ay sikk yoon woowu nga xam ne moom la sëriñ bi xàlloon nag ci wàllu tarbiya loolu ci la yar murit yu baree baree bari bari ba seexal leen jox leen yi daara ñuy def lu mel noonu daanaka sax ci mujjantalam nanguwutoon di yor nit daa bëggoon rek ku ñëw nga dem ci ña nga xam ne defaroon na leen lu mel noonu waxoon na ko ca njaareem ka bëggoon mu defar ko mu yabaloon ko suñu Balla Fally jëm ne ko defar day laaj takkoo defar googu nag ñi mag ci ak njabootam nga xam ne fekke nañ lu bari ci moom ca xàmmee bu baax a baax a baax te ci jiitu di Cheikh Mouhamadul Moustapha ak Cheikh Mouhamadul Fadal nga xam ne lu jiitu sëriñ bi di dem dañ xam ci sëriñ bi lu baree bari dañ taxaw sëriñ bi lu baree bari amutoon ak sëriñ bi daanaka sax man na ma wax relation bi diggante waajur ak doom loolu sëñ Fallou da koo jëf wax ko bind ko ne sequma moom diggante baay ak doom waaye lépp dama ko dindi jënde ko taalibe bind ci xasida ca doxal ko nag nekkul loo xam ne da koo wax rek da koo jëfe moo tax mu ràññee lool ak kër gi ci boppam ràññee ko lool ci wàllu taalibe ak ko fonkeel ak ko tarbiyew ci njabootu sëñ Fallou gi yëpp nag loolu moom lu ñu gis la ak bët Euh, tàmbalee ko Cheikh Mamadou Moustapha mi nga xam ne moo doon Cheikh Mamadou Fadel ba ci sëñ Abou mi yàlla na fi yàlla yàggal ak rakkam yi yëpp loolu dafa fës ci kër sëñ Fallou muy ak ak ak loolu nag moo taxoon bunt yu bari ci biir kër gi di teewoo lu jëm ci wàllu yar sëñ Mamo sëñ Mamoor nag ñu bari dañuy jàpp ne daara yi rek la yaroon di jëm ci wàllum jàngale waaye tarbiya googu ñu waxoon ci wàllum jàngale ak tarbiya ci wàllu ruu yeggale nit ci yàlla loolu da ci doon dund bu baax a baax di ci doxal euh, tarbiya googu nag euh, aji soobu ji nga xam ne daa bëgg a soobu ca bëgg àgg ca yàlla sëriñ bi moom bu matee li mu mën a mat mat ba noppi ci sifaat yi ñu xam ci sëriñ ak melo yi ak yëpp dongo bi nga xam ne nag mooy suñ nawle nga xam ne daa bëgg a sóobu kooku mënees na ko wax ay laabiri yi nga xam ne noonu lay yegg ca yàlla te kooku rek lañ sañ a wax ñun ndax kooku lañ tolloon kooku nag ni muy yegg ci yàlla sëriñ bi bindoon na ko ci tënk ay sifaat yu bari la waaye dana woon ñeent yi mënu cee ñàkk ñeent yooyu ba ci njëkk mooy ak bëggam sëriñ bi na doon lu dëggu mooy sitku fi mahabbati cheikh doon bëgg goo xam ne du du ci ne maa ngi gis sëñ bi su ma ko gisee gisatut jeex na dëgg gu dëggu mooy nga gis sëriñ bi ak nga gis lu bokk ci sëriñ bi ñoo yem ci yow loolu la mag ñi doon doxal Cheikh Ibrahima loolu la doxal ci diggante mag njabootu Sëriñ Tuubaa yëpp Cheikh si fi nekkoon it loolu lañ doon doxal ci ndigi ci njabootu sëriñ bi yëpp bañ demee ba noppee gi sëriñ bi loolu lañ doon doxal ci xulafaa yi nga xam ne ñoo topp ci bi yëpp kon kër gu ci nekk it noonu ñu doxale woon noonu lañu war di doxale mooy sitqu fi mahabbati Cheikh lépp sëriñ bi nga bëgg ko nga xam ne doo ci am genn njistal wala genn bëgg goo xam ne bëgg wax rek lay doon mm-hmm. ci tënk rek ñaareel bi mooy tarkul i'tiraad maanaam lépp lu jëm ci wàllu gaaral wala déng-déngal walla critique doo ko jëmale ci moom bàyyee ko sa bopp it kasaalik ci lépp fépp fu mu la jëmloo bu ñeenteel bi it mooy tënku ciy ndigalam di moytu ko ay tereem kon aji soobu ji nga xam ne daa joxe boppam wala dees koo joxe mu ñëw di tarbiyewu day bopp day bàyyee boppam sëriñ bi ci fépp fu mu ko jëmloo waaye dëggu it ci bëgg gi mu bëgg sëriñ bi te bañ koo diingat ci zahir ak ci baatin diingatuk baatin nag mooy di am ay jàngat ci wàllum xel wala ci wàllu xol ci ay ndigalam wala ci ay comportement wala ci aw doxalina yooyu yëpp da koy génne ci sam xel doon li ñuy tuddee almuridu salik mooy koo xam ne daa sóobu ba noppi bàyyee boppam ki nga xam ne moom moo koy yar kon euh, sëñ Mamadou Fadal day mel ne jotaay bi mbooloo mi bëgg a jël kàddu bari na waaye daal euh, aji sóobu ji daal ci tënk su bëggee yegg day dem nafaraat la nga xam ne moom la sëriñ bi ci melaw murit saadix euh, kon ñoo ngi yamandi foofu kàddu yi di sant ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf euh, sëñ Mourtala na lool waaye tënk na ba mel ne da ngaa fab jëmmi sëñ Maamoor tegal ñu ko ci suñ kanam euh, bu fekkente ni bi bëgg sa sëriñ la soo masaa ñëw ci cheikh sëriñ Maamoor cofeelam ci cheikh Mahamadul Fadal du yem fenn. waaye cafeelam ci sëñ Tuubaa nag surtout da ngay xam ne kii bu fekkoon ne genn bëgg la am xol bee lekk na ko léppam sëñ Tuubaa la waaye bàyyee sa bopp nag ak sëriñ bi mooy kilifaam gu ko yàlla tànnal sëñ mus sëñ Maamoor mus sa jiitu ci boppam ci dara nangoo am kilifa rek teyam ca moom yu bari sëñ Maamoor daana ko moytundi ko wala mu di daw ca man caa am responsabilité waaye du ko jël loo mu ne ginnaaw dañoo am kilifa ba ci sëñ maam sëñ Muntaxa maa ngi fàttaliku benn appel bu ñuy def ci mag ci ci ci alxuraan ji bi ma nee magam di xaritam dafa dagg appel bu ne ma tuub ko sëriñam waaw sëñ Tuubaa du magi kenn te sëñ Muntaxaa mooy sëñ Tuubaa loolu mooy teg téléphone fi mu teg sëriñ bi macha allah ci li nga indi da ngay daal di xam ne kii boo ko gisee da nga naan moom kii daal bu ko sëñ Tuubaa yarut itam ku sëñ Tuubaa yar moo ko yar te loolu lañ doon soxla ci nit kenn mus sa fekk sëñ Mamoor fa mu toogee yëkkatee ab tànkam déedéet. kenn ku mën a am photom bu sëñ Mamour yëkkati tànkam amul foo ko fekk ma nga bank ay tànkam bu yorut alxuraan ma nga yor xasida wala muy waxtaane baaxul sëñ Tuubaa gi eh, kon sëñ Alaaji dañ lay bàyyeewaat kàddu gi rek su ko defee rek eh, ginnaaw seere munta ñàkk te seere yi nag ba ba seere jeex seere aji xam tey tey tey ku laabir ku iñaanu da ciy am solo ñu bàyyi la kàddu gi laata ñuy ñëw ak sëñ Alxaaji Njaay asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf sëñ sëñ Mountakha ci euh, kàddu yu am solo yooyu jëm ci seede ci sëñ Mamadou Cheikh Fadil ñaan yàlla yokk ay leeram amiin yëpp yàlla woyofal yan bi lool yan bu diis la sëñ Mamadou euh, nekkul woon ku ndaw ci genn wet nag ku ci genn dee ci lu jëm ci wàllu am njàngam liñ ko waxee sànq moom daan wax ne man ma jàng lépp suñu alxaaj Mbàkke Jaxate moo ko jàngal moo ma jàngal alxuraan moo ma jàngal xam-xam moo ma jàngal alxuraan mu teel a mokkal lool suñu alxaaj Mbàkke Jaxate it suñu su subhaanahu wa taala yàlla na ko yàgg ci wér mm-hmm. yàlla defal ko tawféex ci am njàngaleem barkeel am njàngaleem barkeel dinaa ba amee xam-xam ba noppi bëggug mu sëriñ Touba suñu borom bi nga xam ne mooy borom kàttan gi ak lu neenal ci moom ab sampam la sam Cheikhul Fadil la bi muy jàng alxuraan it ni alxaaji Mbàkke sëñ alxaaji Mbàkke jaxate baaxoo sëñ as jaxate mooy day ànd ak njàngum xam-xam loo xam ne da fa xam ne faral di wax ne ñun suñu daara yi ba léegi fekk guñ ko ci loolu fekk guñ ko ci loolu bariwaana koo xam ne booy bind kaamil fekk na nga am ak njàmbaar ak sori ci xam-xam sëriñ Sidi Moxtaar ka xafidahullah moom nettali nee na bi muy jébbale ab kaamilam lettre rab la ko booleel lettre arabe la ko booleel boo xam ne moo ko bind sëñ Maam Mor foofu la jaar jàng fa alxuraan teel ko mokkal jàng xam-xam ku ne gis na vidéo boobu muy laaral ci digganteem Cheikh Mamadou Fadal ñu sàkk ci moom ab risaala ci boobu jàppoon nañ ne alliwa ji àggagut alxuraan ji sotteegul mu koy booleeg ak risaala nga xam ne bari na ñoo xam ne seenub yamuwaay lañ ko def dañ ko jàll waaye bi ci alxuraan ji it mu sóobu ci xam-xam. yàlla dogal na téere xam-xam yi nga xam ne moom la ñuy baaxoo jàng fii amu ci téere bu mu daan delloo man yàlla dafa dogal jëlil naa sëriñ gi mu doon soo sëriñ cofeel gi mu amoon ci man ci ñi ñëpp man ci seede suñ mun ñaari ngi nii daanaka dawuñ dem ab diir bu yàgg rek loolu ne dana sëñ baa ngi ci bunt kër bi am mu xeebu mii waaye fi mu fi mu fi ma tegoon ngir kóllëre yaag waajur yaag ak bëgg alxuraan bu loolu jàllee day sama sëriñ ndax daf maa jàngal daf jàngal lu bari ci ay téere sëriñ Maam falaa ko jàngee muy koo xam ne kon daw delloo benn téere ci téere yi ñu xam fii daw ci delloo benn téere ku bëggoon ab gëstu ku ñemewoon ab liir ku jàmbaare woon ci fànn gi xam-xam la mi yor ko lool ba nañ ko ba saa bu ñu xëyee diggante mu ba ba tisbaar lay tax sëriñ Mamoor génn mooy lu munta ñàkk lu far lool kilifaam taxawuloo ko ku dem ndax loolu it <coughs> toog naa ak genn doomu Cheikh Fadil muy wax ne ñun njabootu sëriñ Fallou gépp sëriñ Mamoor moo ci doyoon ñun ñëpp comme ci doon ci ñun rek euh, doy na la ci taxawul la taxawul la sa sa sa sa sa sa wéttal wu fi jógee sa bokkum taalibe noonu mu meloon nag nga xam ne ni la ko xam-xam bi ñore woon bi mu demee ba nga xam ne ay kilifteef tege na ci kawam di ko liggéeyloo liggéey yoo xam ne léeg-léeg génn mënut a ñàkk wane ñor gëm ko ñor dafa jël nit ku jàmbaare ku jàng ba nga xam ne moom dootu delloo téere mu jël ko teg ko fa am lu mu warloo moom ngir lan mooy daara ji bañ a bañ a taxaw ndax daf koo jël moom salang lu déedéet maanaam lay tax mu ñàkk jàngale mooy ñàkk toog kilifaam yu yebal ko ci ci ndigal waaye loolu loolu soo fa demee da ngay fekk kay jàngale mu jàngale waaye moom dawut bàyyee jàngale mi kenn dafa ko bàyyee kenn képp koo xam ne nag muy ay bokkam dawuñ ko seet ci waxtu woowu bokkam ñi ko xam dawuñ ko seet waxtu woowu ndax saa boo ko seetsee ak koo mën a doon wàcc waay boo mën a am da nga yëg ne kii li muy def yitteel na ko ñor na ko ñor goo xam ne jéggi na dayo ndax lan mooy mission la bu mu bu mu gëmoon ne dafa bokk ci mu war a féete Cheikhul Khadim radiyallahu anhu mooy ginnaaw sëriñ bi neewoon na warlul naa leen bindal leen téere yoo xam ne dafa digle jàng ba noppi moom sëriñ bi jàngi leen la wax ba noppi dal ne nag warlul naa leen man mi leen ko digal warlul naa leen bindal leen téere yu ngeen jànge ku am ay téere bëgg a jàng bu la boo gisul ku la jàngal doo jàng moom mu jàppoon ne moom daa war a bokk ci jàngalekat yi mission la boo xam ne Cheikhul ci la nekkoon toog di yalwaan mu jàpp ne moom ci loolu la ko la féete ku ne xam na kon yitte ji mu amoon ci ci fànn googu mustawa bi mu amoon waay bi mu amoon ci xam-xam tolluwaay bi amoon ci xam-xam it ba teggin ya jikko rafet ya taalibe ga moo koy muur doo ko doo ko xam ñooñu fàttiku sëñ Fallou booy suñ Fallou Ndiaye am na eh, waa Daaru Xuddoos at moom ñu ñu tuddee waa Cheikh Fadel seen ngon ma ngont ma discours ba mu fa def. Mm-hmm. bari na loolu ñu topp si ginnaawam ñëw ñëw ñëw daba si ko. Mm-hmm. ngir lan ndax xëy na ñeen ñi xamuñ ko woon ñu ko xamoon moom bettu leen. Mm-hmm. waaye ñi nga xam ne xamuñ ko woon gis ko ci giim gi gis ko ci woyof gi gis ko ci nooy gi gis ko ci mokk gi gis ko ci wàcc boppam gi nga xam ne koo mën a doon rek jàpp ne ne moom yaa ko gën loolu dina yow day njëkkante ci yow jàpp ne moom mën naa am ci yow lu baax day jàpp na yaa ngi lu baax loo xam ne faaw mu jëflante yow jëflante bu rafet ngir sàkk loolu melokaan wa moo tax ak xam-xam bi fees dell gum feesoon ci moom yittewoo gi xam-xam it jéggi na dayoo yëmu yëmale ko woon ci këram kër sëñ Fallou Gueye dañoo toog fii mu ne man de damaa bëgg jël damaa bëgg kër sëñ Fallou gii bâtiment yi di ubbe mën naa nekk ay majalis waxuma la waxuma la benn majalis de moom ay majalis la doon lool ay majalis dëkk dëkk bâtiment yi jël jàngalekat wax ak kilifaam Chabul Baraka waxtaan ci ak moom ñu jox ko ci ndigal mu jël jàngalekat ñu di ko fay nga xam ne moom poosam dawut fekke dara loolu moom buñ ci ñëwee ci kanam xëy na buñ ba ñu ci ay jikkoom dana ci gën a dana ci gën a leer waaye yittewu gi ko yittewu xam-xam bi yitteel bañ demee ba jàngalekat ba góor ñuy jàng mu ne jigéen ñi dañoo war a jàng jël jàngalekat bu jigéen ñu jàngale waxtu nekk loolu nekkoon bind boo xam ne dafa dafa doon dox daan wax ne sëriñ Fall dañoo jàngal dañoo jàngal li mu jàngal mooy lan mooy bi jumaa ci àggee hmm? lim fi njëkk def mooy ab jàngukaay daan wax Alxaji Njaay xoola tey bu doonoon tey jumaa yi ci dëkk bi yëpp jàkk ci dëkk bi yëpp am nañ majlis yu mel noonu boroom xam-xam bu nekk am fa ay waxtu am fa ay waxtu ci misaal bu dee da bëgg a jàng yor-yor da mën a jàngi. Mm-hmm. ki bëgg jàng ginnaaw suba dana mën a jàngi. ki bëgg jàng ginnaaw toog sax dana mën a jàngi commerçant bi liggéey ba wàcc timis dana mën a jàngi. nga xam ne jamono ju nekk am na ku fa nekk koo xam ne yor xalqa di jàngale. nga xam ne moom yëg-yëgam la woon da ko gëmoon ca doon dox nag ci aw yoon ngir loolu am da ko gëmoon ca doon dox ci aw yoon ngir loolu am. kon xam-xam bi ak fonk xam-xam bi jéggi na jéggi jikko yi nag moo ko muuroon jikko yi moo ko muuroon ndax mboolem jikko yu baax yi jikko yu baax yi ma Mamor da ci am ba desal loolu ñëpp xam nañ ko boo gisee mbiram ni mu demee dafa am kuñ daan wax Baye Laay kan moo nekkoon ndawul sëriñ Saliou ci jumaa ji sama bàyyi neen da ko daan waxal ko sëñ Falilou bi mu nelawee loolu misaalam mu daan joxe bu de de mi ngi mel ni asamaan da ko doon njëkkante ak suuf waaye ñoom ñaar bi ñu koy njëkkante xoole doomu aadama yi ne ko tëwit dugal ko seen biir moom moom sëñ Fall waaye sëñ Mamour boo gisee loolu ko yàlla defal ku ne xam na ku ne gis na ne ni mbiram demee ñoo xam ne sax foo ko woon ne xam na xam xam na leen lan moo ko waral ku fa ñëw da doon fay si bor jëf leen ti ñu daan jëf seen nga leen daan toog fii mu yor ay enveloppe ay enveloppe nan ndax yàlla dafa dogaloon ñu boole ko sëriñ daara ñun sëriñ daara ñu ëpp suñ maanaam ñun boromi ajo rek lañ tege ajo rek lañ man mm. tege rek lañ man mu daan wax ne bu ma mënta jëndal xarit tabaski ñëpp it xalaat naa mën a jënd soble enveloppe bi vingt cinq mille enveloppe trente mille enveloppe quarante mille ku xam-xam nga ko ci saa bu ñu mosaan julli tisbaar ba noppi da daal di ñëw fii toog boromi ajo képp boromi ajo képp di ko fekk bu ñëw day waaj mm-hmm. bu ñëw day waaj maanaam waajal boppam ci joxe kese ci du ko jógee fenn ca du laaj kenn musa laaj kenn ni nag daara gi sëñ mun ñaan a ngi nii ba tàyyi wax naa ci ba tàyyi toog naa fii ba tàyyi ne ko jox ñu ndigal ñun dañuy jox ndigal bàyyi ñu def ñu ñu taxaw ci defar lu defar daara ji am na ay ñoo xam ne bu leen ko waxoon baat ak lay doon waaye lan la def tegaate du ko def yow li ko sëñ sëñ mu tax doo ko jox liggéeyu daara yi loolu la wax sëñ bi léegi ginnaaw sëñ bi jox na la ko li mu bëgg rek mooy nga leeral ko recensé nañ daara yi buñ ko waxee aajo yi fi nekk danañ ci taxaw waaye mën na déedéet xalaatuma ko xalaatuma ko ak set maanaam ixlaas gi ne woon ci moom njub gi ne woon ci moom boo ko masaan jox ab junni ci misaal ab junni boo ko joxee ne ko damaa bëgg mu jëm ci daara yi dana la bind ne El Hadj Ndiaye Cheikh nii jox naa ko téeméer suñ mun ñaan bi jox naa ko téeméer suñ mun laa si jox naa ko téeméer suñ El Hadj Ndiaye jox naa ko téeméer bind fa seeni daara nekk seen numéro téléphone ba junni ba jeex mu jël ko jé jébbalaat la kayit wa ngir boo bëggee rek vérifier sa junni fu mu dem wol ñooñu ndax da ngaa yaakaar ne junni yoo xam ci kaamil yi da ko dale sëñ Sëriñ Muxtaar ba ba sëñ Muntaxa mii xafidahu la waraa lu ñu ko mës a jox ci ab limu kaamil mi ngi fi sëñ Muntaxa jox na ma nangami kaamil nangami kaamil warsh nangami kaamil hafs nangami jusu xad samina nangami jusu yaasin nangami jusu xad eh, eh, eh, amayet daal di koy bind ku mu jox bind sa tur bind sa numéro téléphone ba liste jeex noonu la ko jébbalaat sëñ Muntaxa bu ma basaan jox am pepp ci misaal wala dugub li mu daan fere ci pepp mi léeg-léeg daana jënd tonne yu bari ah, waaw daana jënd tonne yu bari te bari xamuñ ko transport bi fu man a nekk moo ko fa jëlee mi ne bari moo leen di fay di xaalis bu bari te da bu ko daawul nangu suñ mun taxaa yëg ko waxuma la laaj ko waaye daawul nangu mu yëg ko ca mboolem liggéey bii mu doon liggéey it danañ jàpp ne moom moo ci war a jiitu maanaam ku ca ku def dara rek da ko ca dab dab fekk ko ca waaye du ceegin dafa taxaw di la laajaka di la expliquer déedéet boo gisee leeral boobu ñu leeraloon jamono yi sëñ siyaar yi sëñ sëñ Muntaxa ñu bari ñu euh, xamuñ ko ñu bari daal wax naan daare yi doxut daara yi daare yi nangam fekk ni mel ci ndax stratégie lu leer nañ ñi la tëraloon. seen nga si daare yi sëñ lu ci jeexal. ay commission la ko wutaloon. yi ñu ko dénkoon ay commission la ko wutaloon. commission bu yor daa njàng alxuraan daara alxuraan yi. commission bu yor école franco arabe yi. Euh, école école yi laay wax. commission bu yor majalis yi. commission bu yor xaside yi. commission bu yor jàkka yi ni ñu ko li ñu commission bu ne ñaar fukki nit ak juróom-ñett ñoo ci nekkoon commission bu ne ñaar fukki nit ak juróom-ñett moo ci nekkoon am majlis shura boo xam ne mboolem kilifa yi dégg fii bindoon na leen seen tur ñu moom ci daan def dara yi lii ba mu ko bindee xalaat ko ba noppi amul kenn koo xam ne mën ngaa doon Serigne Touba ëllëg muy ñi nekk ci boppi kër Serigne Touba ku dul ne dem na ci yow sukk sa kanam leeral la liggéey bii lii ak lii ak lii laa ci xalaat ba nga rafetlu ko mu ñëw di di di dox nga xam ne kon doxin wu sell woowu daara yi daara yi alxuraan yi jàppoon ne daara moom ju am jafe-jafe rek maanaam moom la war ñu daan ñëw fii wax ko biit wallaahi da gis da ngay gis xar kanam bi ni mel nga xam ne bu doonoon day day nëkk jox la soo doon mukk sa aajo fajuwut kenn ku fi mas a génn génn it génne fa lu dégg lu neexut amul ku fi ñëw rek sëñ biit maanaam day da jàpp ne yow sa aajo fajoon mooy da nga xam ne bu jëree xëy dana ci xëy bu jëree gont dana ci gont sër nga lii ñuy joxe lii ñu nuru ñu séddale daara ji mus ci am loolu leer nañ ñu koo jox tonnage ceeb bi lu ñu bari bari tonnage pepp yi lu mu bari bari mus seen waxuma la daa dugg ñu séddale ko daaram waaye dawut dugg daaraam dawut dugg daaraam lan moo doon am mooy mu séddale ba noppi mbooloo topp naan ko ëmm mu jàpp ne mu leen war a jox joxal ma diw ab saako joxal ma diw ab saako joxal ma diw ñaari saako joxal maanaam di wut ci xaalis boppam di jën daan ngir ñi ñëw ne ko amuñu ca moom amuñu gi bëgg koo dégg loolu ay seet ñëpp mën nañ ci seede sëñ Modou ñu daw ta daw ci tàggal ko ñu leen siy jox misaal ci lu bari ñëpp fi mën a joxe misaal waaye damay joxe misaal ngir sës soon soon ci moom ci wàll ci wàll googu kooku nag waxtaane ko ngir rek waxtaan nii ku gudd fan la ndax jugee fu mukk da fi jugee mukk balax yaawoon inda rabbihim yursaqoon wallahi nadim jugee fi de si ma mor jugee fi li mu defar ci mbooloo daara yi mu samp jugee fi ca du fi jugee mukk loolu nag moo am solo sëñ Fallou adduna dañ fiy jaar jàll. ku mu doon suñu dana ko fekke dana ko fekke li li waral nekk moom mooy ñu yëg ne jaaroon nga fi ca fu ñu toogee di wax ne jaaroon nga fi ñëpp ñëpp nangu ne lu wér la. dëgg li ñuy seede. ku nekk ci ñun mën nay toog di seede sëñ Mamour fii ba suba. ca li ngay wax da leer ne mën ngaa waat ci alxuraan ne bakkan taxul dara taxul lu dëgg la lu wër la. ñi ñi koy dégg ñoo la koy gën a gëm. yow mi koy wax ñi koy dégg ñoo la koy gën a gëm yow loolu nag lenn ko may mooy ak dogu adduna ak programme adduna yi xamu ci woon dara maanaam adduna ba mu génnee adduna yàgg na de sëñ Mamour bu ngay génn adduna nii mus seen dugg ci adduna ba ci génn mus cee dugg téléphone yii nga xam ne ñoo xew musu cee am soxla mus am sëñ Modou xoolal ma sëñ Modou téléphonal ma sëñ Modou wal ma diw du cee gën ak ñàkk yewam de ak a yewu woon ak a xamoon ak a yewu woon ak xamoon waaye lan mooy mooy lan mooy dafa bañ dara àdduna baare ko adduna du ci jéem a xam dara ba mu di ko baare moo taxoon mënu ko fi ñukk war ko ginnaaw dëddu lépp nag wallahi mboolem li li li xoy liy nuru luy xoy-xoy ci këram ci ay tabax ak yëf dañoo wañ loxoom def la ko ko wallahi bu doon sëñ Maamoor képp du fi bàyyi tabax wallahi xasim bu doon moom dong man mus ci am soxla mus ci am soxla man soxla sëñ loolu nag buñ koy buñ koy wax ñun Euh, jërëjëf jërëjëf jërëjëf euh, sëñ Alaaji eh, dafa mel ne liñ bëggoon ci jataay bi ñu ngi koy am ndax boo dee fàttali nitu yàlla ku fi nekkatul xol yi ñoo ko war a yëg ñoo ko war a njëkk a fàttaliku te day mel ne sëñ Mamoor xol yi ñoo koy fàttaliku eh, sëñ Alaaji li muy wax euh, dëgg la ci wàllu alxuraan ji mu doon séddaleeg wàllu kii yi léeg-léeg da bu daa masaa di séddale bu dee dajee ci kër sëñ Tuubaa dama ko fay fekk su dëkkee ma ne ko sëñ bi ubbeekoo gaali xaside yi mu ne ma bu ma ko ubbee rek sa wàll sa wàll ñëw waaye nag damay bind saw tur de ma ne ko déet sëñ bi xaa mu ne ma déedéet genn xasida gay bu dee mat la bu sifa danaa bind na fàllu galas laa ko jox daa ma ne lii sëñ Tuubaa dama koo dénk waaye alali ñëpp te bëgguma leen a bàyyee kumpa xaalis buñ ko mësaa jox itam ki ko ko jox xaalis bi ak nu xaalis ba mën a toll rek su ko séddalee ba noppi ni ko sëñ Alaaji wax bataaxel bi dana ñëwaat ci yow boo ko xoolee nim la ko defal da nga xam ne bu la neexee jël sa téléphone numéro téléphone yi daje ne kam ko jox na ci nga woo nga ne ko kar téléphone na ko sëñ Maam Mor lu mu la jox dëbër ki dee mu ne la jox na ma téeméer kenn ko jox na ma téeméer ba muy fukki nit mu wóor la sab junni dem na waaye sëñ Maam Mor moom yóbbaale kenn dara lu weesu ngërëmul yàlla rek la yóbbaale fa mu jëm loolu moo tax sëñ Alaaji ne ba mu génnee àdduna yàgg na àdduna kay moo ko bàyyi wutoon moom ba mu génnee àdduna yàgg na di liggéeyal àlaaxira euh, sëñ Alaaji Fallou Ndiaye yaakaar naa ne mën nga indi ay témoignage diggante ak njabootu Cheikh Mahmadul Fadal gi nga xamante ne bii da nga ko dund ànd koog moom cër bi mu joxoon ñi ko mag ak yërmaane ji nga xam ne doon na ko xool ñi nga xam ne ñoom la mag ak warma ji nga xam ne jox na ko ñi mu bokkaloon kër gi te di ay taalibe. aouzu billahi min ashaytaani rajim <clears throat> bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh jërëjëf sëñ Fallou yi ji sant yàlla juli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam sant Sëriñ Tuubaa sant Cheikh Modou Fadal euh, sëñ Mame Mor dafa mel ne daanaka daal wax ci dafay xaw a jafe ndax li nga xamee ne fi de sëñ Fallou jeexale ñi jiitu woon jaar fi daanaka falay sos ne nu mu demee woon ak waa kër Cheikh Mamadou Fadal duma ci mën a tontu danga naan nu mu demewoon ak waa kër Serigne ndax moom ni mu jàppee woon waa kër Cheikh Mamadou Fadal ni la jàppee woon njabootu Serigne Touba gépp dafa jëloon ñëpp kenn ku mu gis def la lim Serigne Fallou def la wala mu def la lim Serigne Touba moo xam na nga dëkk ci kër goo mën a nekk moom ñëpp nobbaale woon yaakaar naa ne ñi ñi dund sëñ maam moo dund nañ loolu saal bii ñu toog tey bu ma saan sëlmal àjjuma ñi fi daan toog di ko fekk ñi ci ëpp du njabootu sëñ Fallu ca Mbàkke lañ sant dëkk ci weneen mu ñëw mu faj seeni aaju jullee ba pare jox leen añ jëndi enveloppe jox leen kenn ku ne mel ni sëñ Mamor jikkoom moom jikkooy yonent bi alayhi salaatu rek laa ko mën a jàppe mm-hmm. te jikko ju rafet wa innaka la ala xuluqin azimin jooju ñu waxoon waaye sëñ Maam Moor loolu la dund jikko ju rafet boo ko dee xool xool ko sëñ Maam Moor kum gis muy mag muy ndaw jàppe na leen boppam ci nuyu bi mu lay nuyu rek ci nga xamee sëñ Maam Moor mii ji am na cofeel ci yow sa loxo lay téye jërë jërëjëf sëñ yi yaakaar naa ne séntu woon naa loolu ci jataay bi e, loolu mooy liggéeyub sëñ Mamoor looloo tax sëñ Alaaji Njaay wax na sëñ Mamoor du génn àdduna sëñ Mamoor moom faatuwut ndax ki faatu mooy koo xam ne boo demee bu ñu fàtte la waaye sëñ Mamoor ba àddunay tukki sëñ Mamoor yi di nekk ci kaw suuf jëlale naa ñi mu defar waaye jëfi sëñ Mamoor dafiy des te e, lépp lu laal ci sëñ Tuubaa li fekk mi ngi fi des boo tuddee sëñ Mamoor kenn ku nekk mën nga caa indi témoignage bu am solo loolu moom la sëñ alaaji di indi xam naa sore na ci xol bi waaye ñu bàyyi rek mu àggale fàllu sëñ Maam Moor moo ci wax suba ba tey ba suba du jeex ci ay jikko yu baax jikko yu rafet nit la koo xam ne ni bëggutoon nit ku am jafe-jafe kee nit la woon koo xam ne ñu bëri amoon nañ yaakaar ci moom ñu mm-hmm. alxuraan ji ñuy wax ak xasida yi mu nekkoon yeneen ndimbali mu doon defal doomu aadama yi ci suuf moo kopp mhm. te loolu xam naa ci dara sëñ Modou ñaan mais xam na ci dara mhm. wàllu àddina wii intervention yu bëri sëñ Mamoor defal na ko nit mhm. ndax bo daam ñoo xam ne seen bët masaan xonk rek sëñ Mamoor lañ yaakaar xamuñ xam na ci dara ca mbirum nasaraan ma walla xamuñ ci dara waaye dañu ñëw wax man na taxoo gu ma taxoo nag moom su ko nit waxee dara du gàntal day daal jël téléphone bi sëñ Modou wol alaaji kon intervention yu ne da daan def ci yëpp nag bëri na lii nga wax ci njàng mi waxuma daara yim tabax waaye daara fi kër sëñ Fallou ji keroog ba mu koy sañc maa woo ba mu ñëw lii mu wax sëñ Fallou mu ne kër gii dafa war a am jàngukaay daal ma daaru maarif bi sëñ Fallou defoon ci jumaa ji biir kër gii dafa war a am lu mel noonu daal ne ma dama bëgg nga taxaw ci ni ko ah man koy sëñ bi mbirum nangam nangam mu ne ma alaaji man yow dangay ngay sama lépp ci lu ma dugg ñu ànd ko daal dem ci sëñ Cheikh Abi waxtaan ceeg moom man mii la woo sas ma daara ja ma ànd ko ñu ubbi ko ñuy jàngale ba fii may wax ak tey ci suba nit ñi xëy nañ fa jàng mu ne ma nag ñi fa nekk dañ leen war warlu dara am kilifteef geeg fonk kilifteef bi ma ne ko da war a dem ci sëñ abo waxtaan ci ak moom boo ko defee li jóge ci barab bi mën a dem ci ñoom mu ne ma li nga wax di dëgg la waaye man damaa yëbbut sama kilifa ba dem di ko wax dara. Mm-hmm. maa dem waxtaan ci ak sëñ abo jóge fi waxtaan ci ak sëñ abo fata ak ñi mu ci war a wax ba tey ji daara jaa ngay soxla xabrub sëñ fàllu bii mooy génnee ñu leen di fay par weer ci loolu mu ngi jaar ci sëñ Mamor ci ñu bëri xamuñ ko. tey juróomi ñeenti jàngale am fa ci biir kii doomi sëñ bu bàyyi sëñ bu silimaanam fa doomi sëñ as kam eh, as jaxati mii ko jàngal ci ñu ko doon wax léegi muy sëñ am sama nga fa doomi bàyyi ndaam faalam rakki sëñ Cheikh eh, Mala mu ñeenti nit ñoo xam ne weer wu dee ñu dañ fay seen fay di jóge ci xabru sëñ Fallou muy loo xam ne ni du fay ca maamam sëñ Fallu dana ko ci fay bàyyam suñ Fallu dana ko ci fay loolu moo ko liggéey ci yoon ba kër yu baree tey ñu ngi ñu roy ba ba weer wi maa leen fay ca loolu liggéey sëñ maam wàllu diine da yëngu ba tey am nay jamono man ak moom ñuy wër di def ay conférence dëkk bii sëñ maam Mor bul jàpp ne daan ko da daan waxtaan conférence mm-hmm. nit ñu wër ko ñu mm-hmm. ci mujjee def mi ngi ko defee Daaru ci journée culturelle bu mu la daan organiser yow fa la fekk mu conférence fa waxtaan fa bind ñu bëri xamuñoon ne bindkat la woon waaye tey lu bëri am na ñu bëri ñoo xam ne tey ay conférenciers la ma xam leen jarul may tudd seen i tur tey xayatu Cheikh Mamadou Fadal bu luñ ci wan a wax ci suñ maam Mor lañ ko jànge dañ daan ñëw di jël ci ay leçons ci ñoom di taxawaat ci ay sa euh, baas di waxtaan man naa ne diw ak diw ak diw lu mu waxtaanee tey man la ci sëñ Maam Mor la ko jël daan ba mm-hmm. xam naa sëñ Mamoor man bu baax a baax mm-hmm. nit la koo xam ne nii daal mm-hmm. la Aïcha waxoon yonent bi lan mooy jikkoom ñu ne alxuraan waaye Mamoor lan mooy jikkoom mooy alxuraan ndax li nga xam ne def na ko ci alxuraan liggéeyal ko alxuraan waxuma la daara yi rek waaye topp gi ak njàng koo xam ne ba ma ko xamee euh, ñuy ànd daanaka quatre-vingt-un ba ak moom tàgguwuñ ba nëgëni ca bis bu set dana jàng ñaar fukki si bi alxuraan akum nooru daaree ni ba fi mu ba bi mu fiy jóge bis bu set mu jàng lool ñett fan ñu ne ma wàcc kaamil ñett fan yu wàcc ca di ko yàqal dara liggéey bu ñu commencé jox ba mu nekk ca ba demee ba guddi dana ko jël dem ba fenn wala mu toog fexe ba wàcc waaye ñaar fukki si bi dagg moom mënu koo wax loolu nag loolu ah, li jafe la ci loo xam ne nii amul guddi amul bu doon ba minuit dana ko jàng mais rateer bis bii ne jàngu ci alxuraan waa ñaar fukki si bam même moo ko def wala nooru daare nii bi dooru loolu mosu koo def kon loolu nag ñu bëri xamuñ koon ci yeneen yi nga xam ne nag daa ko daan wax sëñ Mamour yow sa sa sa euh, bu ñëwee fii di toog sëñ Mamour da koy ma koy tooñ moom ndax yàlla danoo boole woon lu ma ko wax da koy kii ma sëñ bi sa sa sa sa liggéey ba garaaw mu ne ma mu ne ko liggéey boo xam ne armeel ya tuddi doom ñëw tiim mu ne ma loolu rekk nu war de ci muy dëgg boo ko masaan jóg mu jóg mu jàngale man ñun ñi allah ji nga xam ne ko ñun jaar nañ fa buy tërale bu masaan nekk bu ñëgee dem dem dem armée yaa koy yëkkati wala mu tudd ji doom leneen du ko yëkkati beneen soxla boo mën a am alxamis wala juma la koy nangu waaye bi bisub jàngale mosu ja nangoo def ngan wala mu def ci kenn déedéet lan kay bu la ko yëkkati ci jàngukaay bi fi mu toog di tërale mooy kaay julee ji néew bi wala kay tudd ji doom loolu rek ko sëñ Mamour nit la woon koo xam ne waxuma la nag nit ñi nga xam ne dafa jaxasoo ñoom kóor diine goo fi gis gu ne nag am na ak yow àllaaqa boobu boo xam ne nit ñi jàpp nañu am ko ku nekk am na dum séq ak yow poosam mës ta fekk dara euh, jërëjëf euh, xam naa sëñ seexu naa bisimilah euh, jërëjëf sëñ alhaaji Ndiaye Fallou Ndiaye programme maanaam loolu loolu du mën a ñàkk ci ci ci ci ci ci ci jataay bi ndax sag taqoo ak sëriñ Mamor ak yum la daan doxloo ak jege yoo ko jege ak xam goo ko xam loolu mooy waral lu mel noonu rek te sëñ Alaaji Njaay Cheikh Ndindi dafa wax baat bu am solo fii sëñ Maamoor toll woon ci àdduna ak daraja ji ko suñ borom joxoon néewaa na ko fa toll ba noppi di sëñ daara di jàngaleeti ci ci ci ñu baree bari nag donte am nañ yéene ji am nañ bëgg ga waaye dogu ga nag moo jafe ndax ndax yéene yi def lu baax ak bëgg bu def lu baax moom ñëpp ci marché waaye ji moom fay naa nit donte nag am naa njaboot gu mën a jàngale waaye man xam naa ne jàngale du ma wàcc damaa war di jàngale loolu moom loolu moom jafe lu jafe-jafe la ci suñu nag ko kon ñu ngi lay sant bu baax a baax eh, ndax it loolu ma waxoon ci njëlbeen gi rek eh, jafe na ci yow ngir nga wax ci sëñ Maam Mor waaye nag ñëpp sëñ kër sëñ Tuubaa yëpp nag dañ laa bokk rawatina kër Cheikh Mamadou Fadal ci jotaay bi xam nañ gànt loo ci amoon loo xamante ni bii mënoon na laa te ñëw waaye sa diggante ak sëñ Maam Moor moo tax nga ñëw ci kon ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm kon sëñ Cheikh naa joxaane comme li ñu ci waxtu bariwut moom dafa bokk ci dongoy tarbiya yi ca sëñ maam Mourtala si la doon na ko wax sànq eh, ak tarbiya moom dafa bokk ci yoonu murit moom ni ni ab tubaab bu dëkk France ni mu xamee ne wóor ko ne jaar ci quartier mënut a ñàkk ci moom ni la dongab tarbiya ab murit xamee ne ak tarbiya mënut a ñàkk ci moom mooy baasub yoon yi eh, sëñ maam Mor nag yéen tarbiya leen ba noppi nag kere woon nag daayira bu tudd Miftaahu Saada man yaakaar naa ne. seeni bataaxel jaare na ci man ba tàyyi eh, ngir màggalu kasu rajab wala liggéey bu sëñ bi woote wala nangam ak nangam ak nangam su ko dee danaan ma boo gisee sëñ Modou ñaan ak sëñ Seexu naa joxaan rek daan la ci leeral ñu bëggoon ñëw rek diggante sëñ Mamoor ak dongay tarbiya yi aouzu billahi min asheytaan irrajim bismillahi irrahmani irrahim wa rahmatullahi wa barakaatuhu yi noo ngi leen nuyu bu baax di leen ziyaaro di am mbégte bu baax ci jataay bu am solo bu màgg bu tedd bi ak kàddu yu am solo yi nga xam ne génn na fi di kàdd yoo xam ne ci xol la génne moo tax mu dugg ci xol yi sëriñ Maam Mor nag yaakaar naa diggam ak donga digg diggam ak tarbiya sax la njëkk a wax moom da doon bi murabbi euh, cheikhu bi nag day koo xam ne maanaam ak tarbiyam du yam ci bil maqaal waaye bil xaal lay doon kullun min alqawmi cheyqun aalimun wariun minhum murabbin bi adkaarin wa ayaati minhum murabbin bi xaalin waxdahu abadan minhum murabbin muraqin bil ishaaraati moom cheyqu murabbi loolu boo xam ne xaalam moo lay defar eh, bi ñuy wër jaboot sëñ fàllu gi di jël ay témoignages am na ko wax ne kenn mës a gis sëñ Mamour gëdd doomam wala ab taalibeem mm-hmm. kenn mës a gis itam mu wax ca kaw waaye li defar mooy jëmmam moom la defar ba nga xam ne boo nekkee moom dangay mujj yow ruus a def lu ñaaw. waxuma la ci ak ci ak ci ak nekkam ak gu wuuteem te ñoom ñoom seen iblaat mën nañ maa seere kenn mës a dégg mu wax ci kaw akub taalibeem loolu nag dafa defaroon jëmmam ba nga xam ne jëmmam ci leen nit ñi di defaroo te am solo bëggoon njabootam nag bëggoon leen lool te buñ ne njabootam waxuñ ñu dongee tërbiyéer yi nga xam ne ñoo aju ci këram rek. waaye foo mën a aju rek te ni ci daara ji sëñ Mamour yëg na ne njabootam nga bokk lépp lu muy defal njabootam day dem di ñëw ba agsi ci yow loolu nag moo ko dajalewoon ak daayira Miftaahu Saada muy daayira bu mu daan bàyyi xel lool sax ndax bi mu sosoo dañu nekk Tuubaa boobu yàlla dogal si El Hadj Mamadou Amine Baara yàlla suñu borom dolli ay leeram tuddee ñu Miftaahu Saada bokk na ci ñi ci njëkk bindu bañ ko ko indee dafa ne bind leen ma ci kaw. laaj ñaata la ñuy joxe mu yëkkati joxe ko ni dina ànd ak yéen ci liggéey bi bokk nañ lu mu njëkk nga xam ne moo ko njëkk a wax ci daayira muy kuréelu xasida daa war am ci biir daayira kuréel goo xam ne du kër Sëñ Fallu yëpp da ngeen fay dem di leen ma ay ngont leen jàngal xasida te loolu boobu xawoon nañoo jafe lool ci biir mbooloo mi ndax ay dongee tër bi yoo xam ne ñoo tasaaroo ñii ne ci Tuubaa boobu ñii nekk fii ñii nekk fee ba noppi itam bu noor jotee ñu bari dem noori suñu daje xaw a jafe waaye ci baatinam egg na ba fi ne am nañ kuréel goo xam ne li ci yéeme mooy bokkuñ fi ñu nekk te buñ daree dajee di jàng da ngay yéem da ngay yéemaat suñ borom ñaari muy màggalu Tuubaa boobu bu masaa ñëw li ci jiitu mooy otom bii loolu moom ci la ma gënoon yéeme si Ousmane a nii bu masaa wàcc sëñ bi fii su sunu fas lay doon oto bi sunu lettre bi yëpp moo ko daan séddale ñoo daan yëgle màggal gi yëpp oto ñoo ko daan yëgle nga xam ne damay dem ba mujj léeg-léeg Ousmane di nekk fu sori mu woo ko téléphone léeg-léeg balaa ñëw jël taxi dem nga xam ne loolu kilifa yu bari boo gaaree seen oto da nga leen jox seen caabi moom nag oto bi mu si am soxla da ko jàppale fas sëñ Fallu ñaareel mooy buñ masaa ñëw ci màggal ga day xëy ñëw bu ñëwee daan yéenam andi kat ba noppi def ci màggal gi loo xam ne mën nañ ne kenn du ko kenn ko ci def ànd koog bu màggal gi jeex. loolu nag moo waral nag bi yàlla dogalee mu laq suñu bët te ku ne ci nun mu doonu sa baay baay boo xam ne day wóor ne kii taxawaay bi mu la taxaw sa waajur sax mun la koo taxaw biñ ko gisatul nag yàlla dogal bis bii ñëw tey bisum ngërëm boo xam ne sëñ Fallu moo ca dajale woon donge yi bi ñu waaj eggee gërëm leen gërëm lu rëy wax leen lu ci waay bayati lakkal li sëñ Tuubaa bëggoon defal defal ngeen ko ko ne sëñ Isaa Jaan ñoom si Abdu Rahmaan ak mboolem mag ñi bu ñu masaa xëy bëggu ko sëñ bi la ñuy wër te nag sëñ bi xam ak bëggam yomb yéen nag sëñ bi leen wax ak bëggam ngeen defal ko ko muy jumaay Tuubaa ji bis nag moom la yàlla dogal ñu ko ñu di ñu di ko waajal ñu magal Tuubaa bëggum ren jii nag ñëpp maase ci ne nañ ko sédd sëñ Mamoor jël lépp jox ko ko fàttali ko ko ci moo waral jataay bi am ñu sant bu baax nag sëñ Gass Kaltoum moom mi nga xam ne ci xalaatam yàlla xam ne ne bañ fa demee sax waxuñu ko ko de dañuy waxtaan ak moom ci témoignage suñu jun jël ci moom sëñ Mamour ba ñuy génn mu ne ma damay woo Fallou Galass la mu invité leen ci rajo bi ngeen ngeen waxtaane ko ndax sëñ Mamour ñëpp dañ ko war a xam bi may jóg mu ne ma xaar ma woo ko woo sëñ Fallou moom itam mu def ci yitte yu mat sëkk ak bëgg yàlla xam na ne keroog bi mu waxee eh, tuur na sama rongooñ bi ma ne la lu lu ci war lu luñ ci war a joxe nga ne bu ci waree maa ko war a joxe ngir li ma bokk ak sëñ Mamour bokk leen ko ak moom loolu lu rëy fi nun la nun ndax yooyu jàpp ne lu waaye defal sëñ Mamour nun ko ko defal nun ñun loolu lañ jàpp moo tax ñi ngi sant bu baax a baax te jataay bi nag wax dëgg yàlla luñ ci doon séntu am nañ ci lu kawe suñ jort ndax la ci jiitu mooy euh, sëñ sëñ sëñ maam sëriñ jaxate mi li mu indi ci cosaanu sëñ maamoor ndakate moom alquran ji ñu ko dénkoon sëñ Tuubaa ko ko dénkoon waaw ba sëñ Tuubaa jëlee ab kaamil jox ko maamam hmm. moo waral mënu toon lu alquran ji te nag sëñ fàllu sëñ maamoor képp lañ mas a wax ne moo jiite daa yi mos sa am ba si ba yoon yi sosoo ba léegi daara yëpp sëñ maamoor ko ci moom la masaame ci moom la masaame si nga laa jëy ñun ñu ñu xam nañ li may wax buñ jeex na waaw ko dénk ma ko loolu ci moom la masaame kon day mel ni alxuraan yi nga xam ne kaamil bi sëñ tubaa joxoon maamam si yéer yi te muy kaamil bi njëkk bi sëñ fàllu bindal sëñ tubaa mhm. loolu lu ndaw mu jox ko maamam loolu moo indiwaat lii waaye nag macha allah bi nga xamee ne tey jii sëñ sëñ alaaji fàllu njaay mii waxtaan bu am solo bi nga xam ne def na ko ci diggam xam-xam man bi ma sëñ Cheikhouna mi envoyé diwaanu sëñ Mamour bi nga xam ne ci lañ dajale woy yi ak maqalaat yi bi ma ko yéree sëñ bi damaa yéemuwaat ci suñ borom te nag mosoo ko xam ci doxinam mosoo ko xam ci aw waxinam mosoo ko xam ci daraam macha allah kon daal dañuy sant bu baax di gërëm ñëpp rek di suñ borom defal ñu tawfiq suñ borom fayal ñu ko te nag sàmmal ñu njaboot gi ginnaawam sëñ Moustapha ak mboolem ay rakam ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. waaw waaw sëñ maam su ko defee rek sëñ alaaji sànq genn kàddu sëñ daam ñëw tëjal ñu jotaay bi comme euh, sëñ maam Mor moom la doy woon defoon ko imaam yi euh, barab bi te euh, xam nañ ne guddi na ci moom waaye sëñ mamoor Mor kenn du taayal ci moom su ko dee sëñ alaaj daaneele rek mu ñëw tëjal ñu jotaay bi kon bisimilah. waaw jërëjëf sëñ Fall xam naa. day am li ñu wax sànq rek benn seede buñ ci mën a indi ci wala ñaar ñaar man gis naa fi koo xam ne doon jàngale di jàngale ba ci yàgg daal mu ñëw doon wax ak sëñ bi jafe-jafe daara ja gone yi duñ duñ fay daal wax a wax ba daal sëñ bi di ko déglu loolu moom doy na waar loolu ba ne nag man daal moo tax damaa bëggoon a jéem a bàyyi njàngale mi jéem a seet leneen suñu maamoon na ko léegi ñaata nga bëgg la koy fay nga toog. moom koy fay nga toog kooku ne ko nangam suñ maam Mor di ko jox loola ba nu mu fi jugee ci kenn xamu ko. nga boppam la yor mu di ko fay. am na kenn koo xam ne bu ko tuddoon ñëpp xam ko bi ma lay jafe-jafe ci daaraam suñu maamoon dana ma seetal nañ seet barab buñ gis ne rek. bu fa bu fa amee bu ko amee dana fa mën a jàngale la cay warlu ci fay mën ko fayal luyel ko barab ba loolu moom muy ko xam ne moo ko tudd ñëpp xam ko li ma jeexale muy lu jafe rawatina ci jamono jii mooy yéene ñëpp cër ba leen yàlla jox. waaw waaw waaw. bëggut këccoo ci daraja ci dara jataay yu bëree bëri daana am bëggug dem fa. ak yéene dem fa. lool xam lu ko fa tee dem. Mm-hmm. moo fa demee dinaa fa dajee sëñ diw ca kon dama koy gêner maanaam dinaa moom mooy mag sëñ diw mooma du bëgg mukk daje fa ak moom cër bañ waroon am mu mel ne dañ koy dañ cee da koy mu jox ko suñ Maam Mor mu nekk kilifaam. nga xam ne mu bañ a dem ci jataay bi wallahi lazim ay jataay yu bëree bëri yoo xam ne dañuy waxtaan ba kii waaye bu ma nee nemmikul ma ña fay dem bu ma ne ko ah diw ak diw ak diw yii kon koy Alioune Ndiaye naa toog rek naa toog rek naa yeble naa fa yeble rek waaw waaw naa rek ndax moo bëggul dem fa dem ci darajey kooku dara nag na na darajam war a am cër bu mu am na ko am ba mat sëkk ci bari wute nag ñu bari ñoo xam ne wax dëgg yàlla nekkuñ foofu euh, foofu nekkuwaay bu nekkuwaay bu jafe la dara gi ñu bari dañ koy xëccoo moom nag soxlawu ko woon wax dëgg yàlla macha allah jërëjëf sëñ Alaaji euh, yaakaar naa ne yow képp mënoon ngaa def témoignage bu baax a baax a baax xanaa kàddu yi sant rek ak ñaan asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi ñu ngi leen di ñëpp ñu ñaan suñu borom te war a koo taxawaa jataay bi ñu ci jublu yàlla nañ ko am. amiin wax ci sëñ bi nag xam naa ne jafe na waaye day mel ni jafewut te daa mel ni bi ñu bëgg a def jataay bi waxoon naa sëñ Mamour Diop ne ko xam naa jataay ba léegi lu mu yàgg-yàgg ak lu mu gàtt-gàtt ak baax rek la ñu baam. a baax rek moom mënuñoo wax leen ak baax rek. Mm-hmm. bari na lool tomb yu ngeen wax yoo xam ne lu mat a seetlu la waaye am na loo xam ne defe naa ne ku ko seetlu da nga xam ne seexul xadiim ci maam ju sell jooju la ko doon ne xanaa mu jaar ci way juróom ba agsi ci moom képp ku taxoog moom da nga soppi yéen ko mën a waat fii ku tax ku waxuma gone yi waxuma ñi nga xam ne dañ leen tarbiya waxuma ñooñu de. Mm-hmm. waxuma ñooñu ñi nga xam ne dañ ñëw ci moom rek te nekk ay mag di door ñëw ci moom ku ci taxaw moom lu yàgg tuuti rek danga nga sopp mm-hmm. benn ci man benn ci man ndax jamono yi muy door a làqu ma am benn bis ñu ca alxemes ja defe naa ñu julli suba fi ba nopp dem ba xam ne tàggoo naa ak sama soog dëgg dëgg dëgg dëgg ñu may defal ba ma noppee dama leen a xamal ne li ma li ma defal sama diggante sama borom man rek maa koy. te te keneen ku nekk yëg na lu mel noonu ci ci bopp kon nag buñ fi toogoon ba suba yi ci loolu rek la ñuy nekk li sëñ Alaaji wax ne du fi jóg mukk loolu moo am mooy li am solo gannaaw ñun daf dañoo nekkoon ci wetam mu am lu mu joxuñ naqunu ca ba mënatuñ ko bàyyi nan fexe ba lim lim doon def ci nun ñu def ko ci ay nit ñeneen ak ñeneen ak ñeneen te suñu borom sàmmal ko njabootum bii wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu kon mbokk yi jotaay baa ngi nii seen émission ëttu murit ñu amale ko ci nag ëtt boo xam ne ñëpp danañ nangu ne murit saadix la euh, bari na ëttu murit nga yóbbu ko ci ëtt bu la neex waaye nag indi ko ci ëtt boo xam ne dañu mën a waat na murit saadix la euh, ëtt bi am na ko. Euh, li may wax rek ne bu bu ñu wor wacca bu ñu jëw mooy bu ñu wor mooy liñ digge woon ak moom buñ ci génn bu ñu jëw mooy bu ñu def ginnaawam loo xamante bu fekkee woon duñ ko def euh, kon ñi ngi ñaanal njaboot gi Cheikh Mamadou Moustapha Cheikh Mamadou Lamine ak seen rakk yi nga xamante ni ñoo ñëw teewal leen fi yal na yàlla sàmm leen te aar leen te àggale seen yéene àggale seen way yéene wayjur sëñ Modou Ñaan ñi ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm sëñ alaaji ñi ngi lay sant di sant sëñ Mourtala Silla ak sëñ alhaaji Fallou Ndiaye di sant imam ak bokk yi nga xam ne ñoo ko teewal sëñ Cheikh naa Joxaane seen bokk taalibe Fallou Gala Silla moo nekkoon ci micro bi sëriñ Fallou Sow sëriñ Assane Diop ñoo nekkoon ci wàllu machine bi ñu leen di jaajëfal di leen joxaat daje ci yeneen jataay wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu الله اللهم هيئ سمعة المباحي سبحانه وسوقنا في المباحي ومن كان فيه المنيه من كل شر واحسن سبيل مستمسكين بالقياس اهمل اخير الانام وانتهى وابتلى من قالها في سمع بباي امنه الله من امين امين بسم الاله فن الدار الله سفي بقاء به لي فيك يا الله بسم الاله فن الدار يا الله سفي البقاء به لي فيك يا الله بسم الله في الدار يا الله سفي بقاء به لي فيك يا الله يا من له الأمر يا من لا تريد